chers internautes SMTV ñoo ngi am mbégte di kontaan bu baax a baax a baax di gis li nga xamante ni loolu ngeen liggéey ak ñun muy abonné yi nu muy yokkee saa su ne moo tax ma ne euh, amuñu seen fay yàlla muy am fay yàlla na leen yàlla fayal boppam en tout cas li ñu xam xam ko daal mooy on est satisfait d'avoir des internautes yoo xamante ni dañoo fidèle ci ñun. donc ñoo ngi leen di sant di leen gërëm mention spéciale à tous les internautes de SM TV ak ñi nga xamante ni ñoo ngi ñuy bàyyi xel nañu abonné ci page bi abonné ci chaîne YouTube bi bu ko defee ñuy amay xibaar yu wër te wër mais dafa am loo xamante ni dafa xew léegi loo xamante ni euh, bon jot nañ ci wax lu baree baree bari ñu gis ne làmb tey fu mu toll bu ko nit ñi defarul waruñ kaa yàq parce que làmb demoon na tey ba aussi que ne ki nga xamante ne nii kàddu yooyee la wax euh, lu des ci làmb ji motatul sax euh, quarante huit heures presque yegg si na lañ mën a wax mu yëkkati kàddu yu mel nii jëmale ko ci ñaari mbër yi nga xamante ne ni am na ku nekk ci gannaaw kenn ki pour yàqal benn mbër boo xamante ñoom ñaar ñoo bokk benn dëkk muy dëkk Pikine ñu mën a jàpp ci wax ji rek mooy ne que tey jii Boy Niang moom ci boppam bu sañoon kii di Ama Balde du daan ki nga xamante ni moom moo di Modou Lo mu nekk nag ay kàddu yoo xamante ni dafa surprendre ñëpp boo ko ñëpp dégloo nekk na lu ñu yéem lool te kii ku dégg nu muy waxee nga xam ne euh, waxuñ lu muy wax lépp dëgg la mais nduru naag dëgg donc di alerte ñi nga xamante ni ñoom ñooy jëf yu mel noonu noonu pour di pour pour pour pour maanaam di bañ a gàkkal deru làmb di bañ a yàq li nga xamante ni loolu mooy culture lutte Sénégal parce que tey jii nii amuñu beneen sport lu dul sport bii nii a part football bi nga xamante ne moom moo ñu indil trophée keneen ko wax beneen dëkk da lay wax làmb kon nañ leen fexe góorgóorlu ba moytu yenn audio yi di fuité ba moytu yenn discours yi nga xamante ne nii dara desatu si lu dul ñaari fan gën ngaa néew lu ñaari fan donc bu nit ki waxee kàddu yu mel nii na yàqal promoteur bi yàqal téléspectateurs yi yàqal amateuru làmb yi yàqal ñi nga xamante ñoom ñooy fans këlëbu mbër yi sant leen gërëm leen di leen jox dig daje ba dimanche incha allah wala ba beneen xibaar amaat rek bu ko defee ñu daal di ñëw artu ci waxtaan sek suñuy internaute merci beaucoup restez connectés sur SMTV suñu média la télé que nous partageons di leen jox dig daje ba beneen information lépp lu jëm ci wàllum làmb lépp lu jëm ci wàllum sport d'une manière générale lépp lu jëm ci wàllum culture ci lépp rek di am koo xamante ni dina ci yey yàbbi sant leen gërëm leen di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf